njaay moo nami noo def. sant nañ tubaab baax baax. kii dama koy tuddee l'autre facette de njaay waaw Ndiaye da jaar Hizbut yan année nga jaaroon Hizbut Tarqiyyah. ay mën a mosal lu may wan loolu. li ma gën a mën. loo ma mën a mosal lu may wan loolu kuréel 1 nga nekkoon wala de wala 3. waaw nekkoon naa kuréel 4 non kuréel 5 nekk naa kuréel 4 nekk naa kuréel 3 nekk kuréel 1 Hizbut Tarqiyyah ci Lamine Seye. loo mën a ñamal. ci xasida yi waaw. sëñ Cissé nga bëgg wala wala sëñ Massamba wala sëñ May sëñ Massamba yi neex na de waaye sëñ Cissé dara dàq ko. boo ci gën gën a jekko yow. lépp laa jekko waaye nag. bu bëggee ma ñamal la ci sëñ Cissé. sëñ Cissé ayoo. waaw man moom day sànn naan kenn la woon. Hmm. surtout sànn naan xal bi loo تغرر لأنه للهدى ونور جرار قلبي لو فيك بجسم تغرر لأنه للهدى ونور جرار يعلم جسمي يا دار بل في جلوس بلا علم ولا عمل ولا سخدر ما زال لخيريات ويسلبه حديثا جديدا بل وخدر يلوم وفي خولي وفي كباني بإذن ربي والمبوس من قرآن jërëjëf ñoo fa neex na